maa ngi nuyu ñëpp su nekk si turam a santam quoi maa ngi tudd Ahmadou Biaye dëkk fii si Niathie Kër ñu waajal final bu baax dajeeg suñuy nawle waa Xandaalu quoi di woo bépp supporter Niathie Kër fu waaye mën a nekk ñu fi dëkkoon ñu fi dëkkoon ñu fi jógee ñu fi jote jógee quoi di leen woo ñun ñëpp ñoo jàpp si final bi xam final bu rëy la ñu am te dañoo soxla coupe bi. ñu ngi waaj bu baax parce waaj yu ñu am. match derby la quoi mais tam dañoo am suñuy nawla yu fay dëkk parce que tamit am nañu suñuy copains yu fa dëkk di leen woo tam si fair play mais waa ñàcc kër ñu koy a baax mhm. gis nañu yéen taaral koñ bi. Mhm. peinture yeeg mhm. waaw ñu koy yaa am gën a xam final c'est la fête quoi comme on dit quoi lii moom mënul ñàkk il faut nga taaral sa koñ mu rafet yaa am gën a xam gars yi bëggee ba suba gaa yi dem jël pot li indi gars yi bëggee quoi. waaw Alassane Diop lañ koy wax. président commission sportive bu ASC Niayes waaw mais match bi may euh, li nga may laaj ni ci match bi donc waaw match bi ñu ngi koy euh, préparé comme d'habitude ni ñu doon préparé suñu match de poule ba fi ñu toll nii ñu ngi koy préparé donc match bi waaw mun naa ne match la rek euh, match la rek du weesu match quoi parce que ñu nag Rebeuss ay voisins la ñu donc voilà ab du ab ñun daal lu ñu ciy ñaan yàlla daal mu jeex si jàmm ak salaam que le meilleur gagne donc voilà parce que ñun li may mën a wax rek ñun. mun naa ni euh, Rebeuss mooy équipe bu mag ñun équipe bu ndaw la ñu quoi ñun équipe bu ndaw la par rapport ak xandaalu ñoom jël nañu lépp ñun jëluñu lépp jël jël nañu lépp ñun euh, mun naa ne jëluñu dara quoi ñun équipe bu ndaw lañu waaw parce que match bi ñu ngi wax ñaay euh, cokeer équipe bu mag la équipe la yor lii ak lii non man d'accord ma ci loolu match bi daal lu ma jàpp 50 50 la quoi 50 50 la xandaalu ñaay cokeer ko gën équipe ma xandaaloo gën équipe ñaay loolu gëmuma loolu quoi li ma gëm 50 50 la quoi waaw nañ ko fubal ci fair play que le meilleur gagne quoi loolu la ñuy souhaité yi comme d'habitude rek ñun ku ñu xool xam ne ne yaakaar naa ne ku bu fair play ñoo ko ëpp quoi. parce que ñun ah, mun naa ne ne ñun dañ tooñ sax néewal ñu doole ñu bës suñuy supporters ñu dem ñibbi si jàmm ak salaam coow du am xuloo du am dara du am te yaakaar naa ne noonu lañ ko commencé te si noonu la ko nar a terminé sooba yàlla ak yonante bi loolu la ñuy ñaan yàlla quoi. salaamaaleykum sa sa man la Betty Loxo Faye di adjointe secrétaire général ASC bi en même temps trésorière comité supporter waa di wax rek euh, ci final bi di wax ni que ñun ASC Niayes Thioker ñun pare nañu jour ji rek la ñuy xaar pour euh, niñ koy waxee defal waa ji defal ko bagage parce que di wax tamit que ñun ASC Niayes Thioker dañu mus a jël fair play defe naan ñun ñoo ko trophée fair play ASC Niayes Thioker moo ko mus a jël kon ñun affaire violence duñ ci dox chaque fois rek li ñuy waxtaan ba ci démb ci guddi rek moo ci mujj dañuy soññ suñu supporter di leen wax fu ñu toll que nañu moytu violence ndax violence moom demulul kenn kanam ñu li ñu soxal mooy jour ji ñu kaf ree yëngal koñ bi def ambiance dem gagné suñu trophée incha allah andi ko fii si koñ bi ñu continuer bégee léegi nag euh, pour ci bonne volonté yi vraiment ren moom dañu naan macha allah parce que lu fi gëjoon am am na fi ren ñu bëri bëri bëri dañu jàpp ci ASC pas plus que hier rek moom moo ci mujj ku ci mel ni société bii di Discover xam ne ñëpp xam nañ ko te société mère Orca ëmb ko démb rek dafa andi 3 millions macha allah jàppale ko sunu ASC te loolu gëj nañ ko fi gis ñëpp ku nekk ku ci nekk waa diaspora kenn desul ku si nekk da nga ñuy woo di andi sa moyen parce que ñun ñëpp dañu yéene coupe bi ndax boo leen di seet depuis 87 ba tey ñaay cokkeer mi ngi c'est la deuxième fois muy dem final loolu dafa metti 99 lañ demoon ñu petu ko contre ñu nag sanc ba daaw ñu dem ñu nag dames ñu yàlla def li ren nag moo tax incha allah suñu bakkan lañ ci teg ren moom dañ ñuy jaral carrément coupe rek loolu daal lañu waaw gars yi salaamaaleykum maa di nuyu di leen dalal di leen ne bienvenue à Rebeuss oui maa ngi présenté wu en tant que supporter Malick Niass ñu xam ko si Malick Niass maa ngi nuyu waa Rebeuss di ñuy ñëpp. di sant suñu notable yi ñëpp daal chef de quartier yeeg imam yeeg tout ça xale yeeg mag yeeg ndaw yi ñëpp di leen wax ni nag final bi nag suñu final la li nga xamante ni tey moom la namoon yàlla may ñu ko si jàmm ak selaam kon nag ñu ko def si final boo xamante ni vraiment fair play lay doon parce que bu ma nee fair play aussi euh, dafa mel ni coupe bi mi ngi plateau ba léegi parce que ñaari doomu plateau nooy jànkaarloo final bi. muy xandaalu ak ñaacegar ñu nekk ay voisins aussi vraiment final bi suñu final la bu ñu kenn kenn yàqal suñu yëf la kon nan ko jouer si fulla ak fayda ñu supporter ko si jàmm ak salaam ku nekk supporter sa équipe ñu xam ne nag parce que le meilleur gagne yàlla mooy dogal nag mën nañ def si suñu lépp mais yàlla mooy dogal ku jël ku bi nga xam ne moo métti woon pour jël coupe bi waaw loolu daal laa amoon ci lu ma wax bool amee lu ñu si dolli wàllu supporter aussi maa di ñaax tamit aussi. surtout les jeunes parce que man yàgg naa dem stade mais li ma leen gis si supporter ak avant ça fait deux parce que léegi violence bi moo bëri te violence nekk war naa mën a ñax parce que dañuy dem pour seetaan football war nañu mën a solu ba jekk solu ba rafet ñuy dem supporter suñu équipe te duñ ci xeex duñ ci xuloo si supporter yi maa leen di ñaax si loolu tamit ñu wàññi violence bi ñu bàyyi violence parce que violence tamit du sport sport foo ak ree la foo ak bu ñu ko waxee nag violence war na si mën a war si mën a am place di leen ñaax tamit et euh, si loolu aussi tamit voilà ñu def ko si jàmm ak salaam ñaar ceker ak xandaalu yëpp benn la avant ñun bi ñuy xam xandaalu ñaar ceker mu njëkkoon am voilà ñaar ceker njëkk am te mun naa ne si biir xandaalu lañ ko formé suñu mag ñi ñoo doon dem di fubali foofu ba yàlla def tey xandaalu am équipe am ñu ñëw defar suñu équipe comme ñoom te mun nañ ne kon xandaal ak ceker benn la kon affaire yi buñ ko kenn yàqal feet la feet la feet la bu ñuy dem feet la bu ñuy ñëw. mun daal loolu daal laa am lu mu la ñaax si si supporters yi ñu bàyyi si xel quoi vraiment maa leen di remercier di leen sant wasalaam. maaleykum salaam maaleykum maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bégee ah man la Astou Lo dëkk Rëbës juddoo fi màggee fi ah. waa kañ nekk ci diggu xol xandaalu bëgg ko piir di ko ndamoo saa su ne di ñaan yàlla nag le deux bu ñu fa eggee yàlla nañu yàlla mbay ndam kenn ah ci lu sedd guy du noonu léegi nag ñaa cokkeer ak xandaalu fépp lay lañ bëgg ndax fi yëpp benn la ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bay ah ka foore ñu dem stade bége xam nga yàlla may ñu ndam li ñu ñëw fii bége ah nekk xandaalu bég gis nga ni ñu orné bi macha allah laf cat foo dugg mu ngi tàkk rouge blanc yi mel ni tulleek yaa ngi dégg macha allah daal dem stade rek yàlla may ñu ndam li daal ñu ñëw bége ko kontaan bég landewee bi nag jur bi nekk sama anniversaire même jour sama anniversaire mais nag gars yi dañ koy bégg jógee stade ñëw nag feete ko jël coupe bi teg ko ci kaw ngoto bi di tël di pel pel tur bi Papis président de l'ASC Xandaalu. nan ngeen waajalee final bi. waaw final bi ñu ngi koy waajalee comme ni ma ko waxee woon rek toujours dans la sérénité quoi parce que mbir moom boo siy dem da nga dem ak euh, sérénité voilà je que ni ñu ngi koy waajal dans la sérénité di ko préparer aussi comme il le faut comme tout autre final parce que yàlla def na ni ndam li gën na dugg rëbës. dañ leen dem finale depuis 2006 ba tax na moo waral engouement bi yëpp foog naa vous avez fait un peu le tour du quartier mais gis ngeen engouement bi fi am donc comme li ma chef de quartier bi doon wax rek dañuy ñaan sax léegi chaque at ndam dugg fi parce que ça permet aussi non seulement de de de réunir le quartier xam nga d'unifier tout le monde mais aussi gis nga ko dans le cadre de de comment dirais-je on a fait du set setal xam nga pour nettoyer le quartier loolu yëpp xam nga dafa bokk si si si programme mouvement nawetaan quoi te vraiment lu ñu doon ñaan la mais yàlla yombal nañu ko ba ñu egg final quoi. waaw lan mooy secret waa Xandaalu ci mobilisation. waaw Xandaalu yaa ma gën a xamaa yow mi nga xam ne tu été à la zone une football nga fi xam nga Xandaalu ça a toujours été une équipe populaire une équipe très très populaire macha allah xëy na loolu euh, suñu ndimbalu borom la moo ñu ko may. ba tax na ni aussi ñoom ils sont très très très très collés à leur équipe waaw gis nga ko du plus petit au plus grand en passant par les dames les femmes les hommes ñoom ñëpp daal xam daal xam naa ni bon seen xol la nekk quoi ba tax na ñoom bu ñu amee match seen match sax match de poule du ndaw yow yaa ma gën a xam match de poule sax du ndaw day doon loo xam ni tout le temps ñoom ñu ngi ñëw supporter équipe te foog naa loolu mooy def force équipe bi loolu mooy tax équipe bi day toll foo xam ni pression bi day yéeg parce que supporters yi ñoo la koy jëkk a teg donc loolu la quoi. Euh, xam nga mbir mi yombut. Hmm. ay partenariat amoon ngeen ko pour affaire bi mën a yomb parce que bi dafay lourd. le budget est colossal parce que macha allah heureusement Dieu merci parce que on a eu un partenaire comme Orca vraiment qui nous a fait soutenu j'en profite pour le remercier aussi au nom de toute la population rebeusoise parce que nawetaan dafa metti kenn umpalewul am na. équipe yenn équipe nawetaan yi sax li ñuy dépenser championnat du ko dépenser quoi donc ba tax na bon ñun daal ñu ngi siy sant yàlla même ñu booleeg Orca xam nga mu jàppale ñu si liggéey bi quoi waaye. mot de la fin. mot de la fin comme li nga wax sànq ah, un appel à la sensibilisation un appel à la paix un appel au fair play parce que match bi le match la doit se jouer dans la sportivité xam nga li ma wax parce que football la nag en dehors de tout ça la. xandaalu la ñaa cokkeer la c'est une même famille doomu nijaay la doomu bàjjen foog naa ñoo ko bokk ñu ñëpp donc comme li ñuy wax rek en sport que gañ mais samay li ma si wax mooy que le meilleur gagne boobu damay ñaan mu féete xandaalu voilà ak lu mën a am daal ndam li du génn plateau. non du génn plateau c'est le plateau ki gagne parce que que ça soit ñaa cokkeer xandaalu c'est le plateau qui gagne et puis c'était l'objectif parce que d'autant plus que presque dix ans tey bu plateau yi demuñu woon final à part daaw mais cette année ci a eu du 100 pour cent plateau ce qui veut dire que ni coupe ndam li a euh, alamin mbokk nga xam ne yéen a ànd ak ñun ci Moustikh TV reportage bi la ñu jëlee woon fële ca Niacoker ak fii ci Rebeuss muy ñaari ko wax yooyu nga xam ne tali bii ngeen di seen sunu ginnaaw moo leen tàqale Niacoker Rebeuss mooy finalu zone une 2019 gis ngeen ñoom ñëpp lu ñu wax mooy jàmm la ñaan kenn ku ne mi ngi ñaan yàlla am ndam waaye lépp ci fair play ngalawaay ni ñu ko waxee nañ ko jéemee noonu jàmm moom baax na lool ci wax ko waaye sàkk ko moo gën ci du ko wax kon du lool rek la jàmm salaan ak tawfeex nii rek la ci Moustir TV ak yeneen programme ñi nga àndoon nag Ablaye ci caméra bi seen mbokk Saïd Diallo tawfiq ak taysir wa salaamu aleykum wa rahmatullah